tey jii tur wi lan moo la ci gën a neex. vraiment neex na ma trop. Mhm. parce que euh, lu may wax rek Omar dafa ñëw. Mhm. ne nekk Magu Sall ba pare tourné waa nekk papaam. ndeysaan dëgg yàlla loolu mhm. noonu. dama cee kontaan trop. Mhm. parce que Omar bëgg nañu dañuy conseil et jàppee nañu daal comme comme boppam daal. Mhm. wax dëgg yàlla tur moom bettu ma benn yoon ndax moom moom tur daal moom macha allah. Khadija su ma la bettee su ma juumul dafa mel ni Omar Sakho day jékki-jékki jël la jël buri jëloon awa jëloon soxna yi sëy si kër gi yëpp dajale leen takk leen benn convoi yab leen ci oto yóbbu leen ci benn resto boo xam ni da ngay commande loo soxla rek da nga naan service mu ne naam mu ne ko indi loo bëgg ñu jël la après Omar bu ñëwee mooy def tokantu bi bu dee million mu fay lépp loolu su ma juumul Omar da mel ni kuy xelmati di def loolu ma fekkee. waaw loolu am na. waaw loolu am ndax bëgg na wax dëgg yàlla jabaram yëpp nekk benn. Mhm. waaw comme ñoom euh, luñ seen famille lu ñu nekkee benn daal. Mhm. vraiment loolu da koy def day def yeneen tamit lu ëpp loolu. ah Khadija am na lu ma la bëgg a laajaat lu tuuti rek. comme tey jii dama ne dama ànd ak euh, euh, télé bi ñu naan xaas TV dama ne xaas yegg si si yow te bi ma yegg si yow li ma lay laajaat mooy sa diggante saa kees. ndax doo jékki-jékki mu duma la wala nga duma ko wala ngeen jékki-jékki róofa ah, yëf yi daal nu mu demee noonu daal ndax sëy boo gis nee nan ah, yàpp barma la lu mu duuf duuf ratax lu mu ratax ratax duuf nu mu demee noonu saakees tàng na wala tàngul wala dina jékki-jékki neexal la wala ci mer rek lay dëkk non Salif amul problème ah ku ndax man sama xarit la la doon ba pare dell la nekk sama jëkkër. Uh-huh. wax dëgg yàlla ñu nekk ay complice. ndeysaan wax dëgg yàlla mu ne sama xarit daal sama lépp comprendre ma man tam ma comprendre ko complice am na lu ci rax tegal sa loxo. complice xaalisam ndax yaa ngi koy gis wala yaa mi ngi la koy dénk nu mu demee noonu. ci laa dëkk ah, ci laa dëkk fu mu nekk macha allah ma di ko sant di ko gërëm lépp moom la. gis nañ fi lu nekk mais moom daal sant yàlla rek sant yàlla parce que nit boo amee jëkkër ju la bu la bëgg loolu moom mën a to sëyal rek ba dee daal kon daal la ñuy wax ci néegu sëy daal na la dëkkoo na la kodd na la jox na la nga lekk waaw vraiment waa tey jii li ma lay laajaat mooy lu tuuti nag mhm. lu tuuti Salif ak Omar koo ci gën a bëgg <laughs> question bu garaaw bu xóota ngi noonu ñoom ñaar ñëpp laa bëgg ñoom ñaar ñëpp nga boole bëgg say goram baa sonalul la ci kër gi yàlla tere kon riccu woo loo doon duggee ci kër gi non non non yàlla sa jàmm yeeg yàlla nga eggale madame Sakho yaay Seyna Omar yaayu Mouhamed ah dama ni yaayu xale yëpp rek yaayu Malal yaayu xale yëpp macha allah Khadija yàlla nga eggalee yàlla na sa sëy bi dàq ci sëy yëm sunu borom jëmbat ca aras ci barke yonanti yàlla Mouhamed yalla nga fi nekk ba am loo yónni muy dem ak a naa la yaay muurul dem ziyaara ji yonanti bi yow loo gisee umra allaaji bi nga xam ne mi ngi ci biir kër gi muy Amar Sakho Salif bu bëggoon a dem léegi danga naan ko xaaral wala danga naan ko demal te ñëw rek bëri ñetti yoon ba non day dem te ñëw ah ndax yonent bi du kenn du kenn lu dul moom moo ko gën waaw ah lan bi saali mawlidi saxlu nabi Muhammadu xayrul wara kenn du moom man kañ laay dem waaye yéen man kañ laay dem ci yonent bi dem umra yéen waa Sénégal ku may may biyee ma dem te yàlla rek tax